asalaamaaleykum mbokku Sénégal euh, maa ngi yëkkati kàddu ci waxtu wi di jégalu si waxtu may wax ak yéen ngir di wane ne suñu réew Sénégal wane na boppam si bésu dimanche bi ñu génn ñu dimanche 26 février 2012 ndax askanu Sénégal. wane na si njëkk ak teranga waaye ci fulla ak fayda ne moom askan bu màgg la askan la boo xam ne bu waxtu taxaw jotee mën na taxaw ci loo xam ne si jàmm la koy def ak salaam waaye wane na ci xeet yi gën màgg lañu bokk ci démocratie yi gën màgg yi ñu gën a kañ ci àdduna bi Sénégal mën na si bokk ndax dimanche senegal yëpp xëy nañu dem wote ji te benn histoire amu si te loolu mooy démocratie xeex amul bal takkul nit faatuwul euh, ku ne nga tànn ka la neex ne man diw laa résultat yooyu ñu génne loolu la Sénégal wanewaat ma koy rafetlu di si sant nag askanu réew mépp askanu Sénégal yëpp ndax loolu mooy li nga xam ne mooy suñu kañ ñun réewum Sénégal may gërëm bépp sénégalais déjà bu bokk ci wote bi dem joxe sa xalaat waaye may gërëm itam ñi nga xam ni si biir ñooñu tànn nañu ma en tant que candidat jàppale ma woteel ma sànni ma seen carte ko dalal ci waa après yi nga xam ne ñoo bokk jëmukaay bokk parti ba ci waa coalition Macky 2012 muy ay parti yi lëkkaloo ak ñun ngir jiital ma ci jo joŋante bi ba may ñu résultat yi ñu Sénégal nag wax naa ko sànq li fi am man du ma ne sama ndam la wala ndamul keneen la waaye ndamul réew mi la ak askanu Sénégal ndax li fi am ñëpp tiitoon nañu si àdduna bi boo leen xoolee ñi fi teew jamono jii secrétaire d'état secrétaire d'état bu Amérique bu yor wàllu Afrique mu ngi fii ñeneen ñi jiitu réew seen ancien chef d'état ñu ngi fi union africaine ngi fi CEDEAO ngi fi nations unies ngi fi ñëpp a ngi xool tiit mais peuple bi wane romb nañu foofu romb nañu fi ñu foogee parce que mën nañu régler suñu problème de bal du tàkk nag jar na kañ moo tax toujours ah, ñu ne li peuple bi wane homme politique yi ak leader yi war nañ ci bàyyi xel te jàng si ba ci ñu yor réew mi ba ci ñuy nekk si opposition bi ndax gis nañu ne ñoom kat tey génne nañu jukki nañu si urne yi xalaat yi ku ne ñu jox la la nga yellool